salaamaaleykum wa rahmatulah man maa ngi turu sëñ bu so maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar nuyu mboolem kilifa yi ak soxna yi ñuy seetaan fu mën a nekk ci àdduna bi. waaw sëriñ Afia ci tënk xamle ko dana yomb lool doomi sëriñ bu Bousso bi la sëriñ Bousso bi nga xam ne mook soxna jaaratullaahi mi waajur Seexul Xadim ñoo bokk ndey ak baay ak soxna Mati bu Bousso waajur mu jigéen tudd soxna Mati Ñang di doomi Alxaaji na Korka Ñang dëkkoon ci Afia sëriñ mi ngi gën a àdduna ci. 1867 ca Naawel euh, bi mu gënee àdduna waa waajuram sëriñ bu soobee moo ko dalal bi mu bi mu tolloo ci jàng bi mu noppee jébbal ko magam Alaaji Mbàkke Buso mu jàngal ko ginnaaw bi la ko jébbal Seexul Xadim mu jàngal ko bi mu jàngee alxuraan ba wattu ko tamit jàng na xam-xam ba géeju ci comme doomi soxna yëpp dañ ci baaxoo def ginnaaw bi nag xam ngeen ne jàng rek daa doyutoon ndax sëriñ bi bi nga xamee ne yoroon na daara bi mu ci jógee yonent bi da koo dikkal ne ko rabbi asaabaka bil himma wala tu rabbihim bil darsi fa xat ne ko sa ñooñ kat yar leen ci himma himma nag mooy tarbiya tarbiya leen tarbiya gu sell goo xam ne da leen dafa taqwaa ci ñoom ginnaaw nag la ko sëñ bu soobee jël jébbal ko sëriñ Touba mu defal ko tarbiya gu yàgg mooy siñaafe bokkoon ci ñi nga xam ne bi sëriñ bi sañ ci Touba jógee Daaru Salaam ñëw Touba juróom-ñaari at mu fi nekk yëpp dafa bokkoon taxawoon ci ak njabootam bokkoon ci ñi mu doon tarbiya tarbiya gu yàgg goo xam ne gu sell goo xam ne biñ ci jógee dañoo jeex takk ci yàlla nekk ay rijaalullaahi yu mat sëkk siñaafe ci ñooñu la bokkoon bi fi sëñ bi jógee tamit Touba di dem sañ ci Mbàkke Bari bokkoon na ci mbooloo mi àndoon ak sëñ bi ci ñan woon gaal yi sax ci la bokkoon bi mu teggee gaal gi dara bopp bi da cee toppoon sëñ bi yéemu ci lool balaa joon ko loo ko bëgg loo gën a bëgg wax ma ko mu la ko mën a dina gën a sopp kon kooku mooy sëriñ Afe moom la xam ne Cheikh Mahamadou waajuram wu jigéen soxna Awa Bousso mook sëriñ Ñaafi ak sëriñ Ibrahima Bousso ñoo bokk ñaari waajur moo jox woon ndigal li ci 1956 moo njëkk ñëw fii màggal ko jàngkat bi fi ñëwoon muy sëriñ Saliou Dia moo ko ne moo ñëw di ko ko màggale nii nekk ba fi di mooy sëriñ Ñaafi moo nekkoon imam ci jubaay Touba moo ci topp ginnaaw bi sëñ Abdou Moutalib moo ko wiitu waaye ci atum 2003 la sëriñ Thierno Bousso wuutu ko moom mi nga xam ne mooy suñu waayur moo fi nekk ba 2018 nekk fi taxaw woon njaboot gi màggal gi tamit mu liggéey ci liggéey bu am solo gën koo yaatal ngir lépp ci ak ubbeekoom ak jëflante dëkk bi euh, képp xamoon na ko bëriwoon na yitte lool tax na màggal gi dem ci dimension boo xam ne yaa mujj na bokk ci calendrier yi nga xam ne Touba bu jotee ñëpp dañ koy bàyyi xel daanaka mbokk yëpp diggante mbokk yi mbusoobe ak mbokki aafa yi ñëpp fu heure bi jotee dañuy ñëw màggal si ko. ginnaaw nag ginnaaw 2018 bi mu fi jógee nag sëñ Alaaji Buso Ndumbe moo fi nekk jiite njaboot gi euh, jiite jiite njaboot gi euh, tamit di wéyal liggéey bi ñu koy ñaanal suñu borom gën ko fee yàggal lool te wéral liggéey bi tamit mu koy def lu am solo ànd ci njabootu sëñ Aafa gépp ay rakkam ak ay doomam ak i njaboot gépp di ànd ak moom ci liggéey bi message biñ ci lancé mooy ñu xam ne Sénégal daal am nañ ay mag ñoo xam ne ay mag rayukaay royukaay la ñoo xam ne bu ñu sukkandikoo ci ñoom bu ñu sukkandikoo ci ñoom lépp dara mat sëkk duñ jéggaani dara euh, nañu gën a xam ne daal am nañ ay mag ñoo xam ne bàyyi nañu fi valeur yi mat sëkk bu dee ci ragal yàlla kenn gën leen ko woon ragal bu dee ci dindi nu diina lislaam diina ju set yoo xam dafa dañ ko tege woon ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alxuraan ci lañ nekkoon bu dee bëgg sëriñ bi tamit amuk taalibe ñoom ñoo ci féete woon ñëpp ci kaw kon daal mbokki taalibe yi ak mbokki jurit yëpp nañu xam ni ñu gën a xeeñ ci royukaay yooyu gën cee nekk te xam ne réew mi tamit jàmm rek moo fi sax jàmm rek moo fi am nañu suxan njaboot gi tamit ci jàngal leen jàng yaru diina yar leen jàng lislaam na gën ñu ñu ñu mën a mottali lépp loolu daal bu ñu ko defee incha allah réew mi dana gën a am jàmm tamit naataange ak euh, soq euh, yokkute gi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy yaakaar danañ gëm nañ ne incha allah danañ danañ fi mën a bàyyi ndaw yoo xam ne danañ ko mën a gunge boo yóbbu ko fi niñ ko bëggee. xam honorable Matar Diop moo ñu yabaloon pour ñu ñëw fi def fi ay ziar ziar yooyu nag bi ñu ñëwee ñëw nañ ci xalifa bi mais aussi tamit ñu ñëw ci suñu xarit boo xam ne dañuy ànd ak moom euh, mu nekk suñu collaborateur di Serigne Thierno Bousso di nekk nit ku baax koo xam ne nii kuy ànd ak euh, honorable Matar Diop la ak tamit rakkam maam ja Bousso di léppam ku gis honorable Matar Diop rek yaa ngi ko jis si wetam mu di ko jàppale ci côté yëpp kon nag bis bi bu ñëwee nga xam ne bisub ñaan la muy bisub laylatul xadr mais am tamit pàkk bi comme ni ko kilifa gi waxee léegi muy pàkk boo xam ne nii pàkk bu bu bu dal xel la ci bërëbum ñaanukaay dinañ fi ñëw Matar Diop yan yónni ñu fi ñu ñëw fi pour recueillir fi suñu ñaan ñaan yooyu di ñaanal réew mi suñu boroom def fi jàmm def fi xewal ba lépp loo xam ne nii son excellence président Macky Sall mébét na ko pour mu pour pour mu am ko suñu borom dimbali ko ci loola ba ba lépp sotti ci ak dal ak ak ak ak ak teey beneen bi ci des ñuy ñaanal suñ suñ suñ suñ leader honorable Matar Diop muy ndaw boo xam ne nii ndaw la ci dëkk bi mais aussi tamit ñëpp xam nañ ko ci côté bi mu nekkee muy ci wàllum social wàllum wàllum yëpp mu ci def lu mu kàttanam ak yëpp mu di ko ci def kon suñ ñëwee ci bis bi bis bi attan na ko attan na lu nekk ñu ñëw fi pour ñaan yàlla yokk xéewalam dolli ko kattan ba lépp loo xam ne ni mu ngi koy def ci dëkk bi rek suñ borom gën ko kattanal ba mu def ko loolu daal mooy kaddu yi nga xam ne dañoo ñëwoon fii tey jii pour pour pour ci dëkk ci dëkk bu sell bi. Mourtada Bousso la moom Serigne Thierno Bousso moom Serigne Afia Bousso ëtt bi ñu nekk tey di doomi sëriñ Afia Bousso sëriñ Afia Bousso di doomi sëriñ Bousso be bokk ak soxna Awa Bousso muy waajur sëriñ Fallou nday ak baay ñu ñëw fii ci xam ne doomam di sëriñ Thierno Bousso nga xam ne moo fi mujj njaboot sëriñ Afia Bousso réaliser réalisation bu am solo defar fi kër sëriñ Afia Bousso ci jumaa ji ak ci barab bi ba yaatal màggal gi ba ak an yóbbu ko ci dimension boo xam ne nii dimension bu kawe la li ci ëpp ci lu jiitu ci cosaanu màggal loolu sëriñ Saliou ñëw na ci duñ waaye sëriñ Thierno moom mi nga gën a àdduna 1900 21 fii ci Darou Manane waajuram maam sëñ Afi tudde ko maam Thierno Birahim ndax kóllëre goo xam ne amoon na ko ak maam Thierno Birahim kon sëriñ Thierno di nit koo xam ne nii ku ku ñëpp xam la ci dëkk bi nekkoon xalifa bi nekkoon xalifa sëriñ Afi Bousso waaye nekkoon xalifa sëriñ Bousso bi réalisation yu am solo yi mu def bi nekkee sëriñ Afi Bousso réalisation yu am solo yu yu ko raw la def ci bi nekkee xalifa sëñ Bousso fii ci barabu sëñ Bousso bi ci Mbàkke Bawol ak ci kër sëriñ Bousso bi yëpp ay taxawaay yu am solo la nekkoon nit ku xam ne nii nit ku ragal yàlla la adduna bépp naw ko jox ko jox ko cër nit ku ragal yàlla nekkoon jaamukatu yàlla boo xam ne ni ñëpp ñëpp xam nañ ko di nit ku lewet koo xam ne nii ku fees dell ak ak baatin ku fees dell ak saay ak baatin ba noppi woyof toll dimension yoo xam ne ci la yóbbu màggal gi mooy jël ab comité organisation boo xam ne ay ndaw ñoo ko seq teg ko seen loxo lépp lu war ci ci ci ci liggéey bi mu ànd ceeg ñoom ba dimension màgg ak si fi kon fii lañ nekk tey ci ëttam ànd fi ak njabootu sëriñ Thierno yëpp suñu kilifa sëriñ Afe bu su jiite ko ak mboolem njabootu sëriñ Thierno gi yëpp sa njaboot gi yéen ñëpp ñun bokk ci yow mii nga bokk ci sa waajur nekkoon wëlëre sëriñ Thierno dépp la sëriñ Thierno ñu bëri xam ko nga nekkoon ci ci moom kon ba àgg ci liggéey bi kon sëriñ Thierno daal mooy koo xam ne ni màggal gi bis la boo xam ne nii barab bi barabu ñaanukaay la sëriñ Fall daana wax ne nit daana ñëw ci moom di ko dis aajo kon Serigne Fallou yi moo digle bis bi njëkk ko màggalal boppam indi fi ay taraanga yabal Saliou Thiam mu seen waajur suñu nekkoon bi mu fi jógee 2018 ñu fas yéene tànk yi tegoon ñu gën ko yokk ay jéego waaye duñ ko wàññi ànd fas yéene saa ñëwee ñu dundal ko ci ay jàng alxuraan jàng xasaay def ay bernde def ay salaatu an nabi berndeel jaamu yàlla yi di guddi gi ñu fanaanee durus xasida màggal ko ndax bis bi dañ ci dàkk Euh, Laylatul Qadr sëñ Touba digaloon na sëriñ Mbacke bis ak Maam Mor Diarra ñuy def Laylatul Qadr waaye bis bi it ci la yoonu murid gën a judd bis la boo xam ni kon bis bi dafa dafa mandargaam ñett ñetti mbir kon daal loolu mooy bis bi fii ci kër sëñ Thierno Bousso noonu lañ koy waajale di ko màggal fas yéene ko fanaane ba bëccët ñaan yàlla daal fépp fu waaye nekk ci àdduna yàlla def jàmm ci réew mi wàcce ko ci réew mi def jàmm yokk xéewal yi ba nga xam ne képp ku fi teew sa jéego yi nga xam ne moom nga jéego bi ngay ñëw ak bi ngay dem suñ borom fajal dafa la faju aajo ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax di am yaakaar ci ne lépp lu fi waay ñaan dana nangu ñaan yàlla ñu fekk ko at yu déwén at yu bëree bëri di leen sant bu baax yéen seen taxawaay presse bi yëpp ñoom ñëpp saa yu ñu xewlee suñuy xarit lañ suñu wëlë rek dañu bàyyi seen yitte ñëw ci ànd ceeg ñun ba bés bi jeex kon ñu ngi leen sant di leen ñaan yéen ñëpp suñu borom yàq leen ba fi ngeen bëgg àgg yëpp ngeen àgg fa taalibé moom amuñ lu kër gi ñun it amuñ li tax mu weef ci ñun sax mooy taalibé yu takkatoo ñoom ñëpp seen alal fekkiwu ko seen doole fekkiwu ko seen xam-xam wu ko ñëw taxawu bis bi ba li ci war lépp ñu def ko kon nag ñoom it leen di ñaanal baax a baax ñu gën ndax kat sëñ Touba bi mu taxawal yoonu murit taalibe rek moo tax yoon yu force bi yoon yu toll ba nga xam ne projet bu ñu teg ñu mën a financé wu taalibe yi ñoo ko waral kon taalibe yi aju ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom mu yokk leen ñoom ñëpp bàyyi seen ñu jógee Ndakaaru ñu jógee ci yenn ñu nekk fi seen soxla tëj seen kër ku ne xam ne xataayu jamono fi ñu tax ci koor gi fas yéene ànd ñun ba suba ñu delloo bagage doo delluwaat kon ñoom ñëpp ñu leen sant di leen yokk leen ci yàggu teew at yu